ñu jël temps bu bëree bëri pour nit ñi mën a gëm que ni lii attaque bi am na. waaw tey lan moo ñu indi foofu mami. voilà pour poursuivre dans la même lancée que que que Cheikh mu ngi wax maa ngi reetaan parce que ndeysaan quand il di que réew mi lépp politique la euh, daf may fàttali rek ni xam nga réew ma bu nu demee ba euh, maanaam mu nekk ci situation ba daloon dof ba fekkee woon accident wu oto ba. Mm-hmm. waaja dof ba fekkee na accident wu oto ba. Mm-hmm. am na ñu ci ñàkk seen waaye am na ñoo xamante ne ñu ngi doon dund. Mm. saa waaye gas na moom paxam ba mu xóot. dugal ca ñadee ak ñadeewul ñadeewul kat ña nga naan dof ba naan ko. ñun deewuñu de <laughs> dimbalu nu ngir yàlla rek waaye mu boole ñëpp suul ba pare mm. woo sa pompier. Mm. toog xaar leen ba ñu ñëw mu ne leen accident de amoon na. am na ci ay nit ñoo xamante ne nag dee nañu am na ñu ci deewul woon waaye ñu ngi continuer naan ma ñu man deew ma waaye gëwuma leen comme ay réew mi ñëpp ay politiciens la mm. xam nga loolu itam mm. ça pose problème mm-hmm. qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à ce que aujourd'hui euh, bu fekkente ne y a une communication bu génne les gens en doute les gens en fait ont perdu confiance ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk sunum mm-hmm. réew mm-hmm. manque de confiance boobu mooy indi et que comme il dit il y a eu depuis très longtemps une rupture de communication entre l'État du Sénégal et le peuple sénégalais en réalité quand pour donner une communication à la limite nit ñi dañu koy peese waat peese waat beneen bi ci topp mooy la maturité du peuple sénégalais par rapport à une situation donnée xam nga dama d'accord ak Cheikh Ousmane ci benn côté mooy xam nga am réew Mahfouz mënu fa dee dem bay wax naan attentat terroriste am na ce qui veut dire que mu ngi ci insécurité bu mag attentat terroriste fu mu am cim réew bu boobaa jot na kon ñu saytuwaat xoolaat bu baax suñu kaaraange réew mm-hmm. parce que là ce n'est plus une question politique c'est une question de sécurité publique boo xamante ne ça concerne chaque Sénégalais d'entre nous pour nous Sénégalais nga xam ne quelle que soit situation bi lu mu metti metti ci réew mi on est habitué à ce que bu nu xëyee dem doxi suñu soxla mm-hmm. bu goon jotee ñu ngay doxantu ca booru géej ba donc boo Mm-hmm. attentat terroriste am na fa yaraax. Mm-hmm. on s'attend à ce que kon xanaa finalement nekk ñu en sécurité nulle part. Mm-hmm. dans cette affaire là ce qui a fait que euh, malheureusement les gens ont eu des doutes c'est que aussi il y a le point fort des réseaux sociaux. il y a des réseaux sociaux ici nga xam ne da ngay joxe information 18 heures. balaa 22 heures xale yi ñoo raw renseignements généraux. man comprendre ma en fait. La polémique est là est-ce que c'est une campagne de désinformation ou pas c'est des questions qu'on peut se poser mm -hmm. mais bu fekkente ne am na sur le coup les gens doutent sur le discours bi nga xamante ne moom le chauffeur bi di tenir mm -hmm. quand il vient dire ces deux personnes finalement c'est sept euh, ñu ne la finalement il y a deux personnes qui sont calcinées les gens se demandent où sont les corps mhm. xam nga li ma la wax am na ñu ci gaañu ñu ne fan la ñu toll euh, bi accident bi amee j'ai pas vu le micro de Sunugal 24 moi sur les lieux mhm. j'ai pas vu le micro de 2 TV bi ma nekk j'ai pas vu le micro de Seneweb on a vu un micro boo xamante ne est-ce que micro presse la mhm. wala dire pas la donc c'est la communication mhm. de la de l'armée sénégalaise à la limite donc aujourd'hui je veux dire pour des genres de situations comme ça boo xam ne en fait on peut pas empêcher aux gens ne leen bu leen xalaat bu leen réfléchir wala bu leen am doute parce que doute bi li ko indi rek mooy manque de confiance bu dee confiance am na doute du fa am lépp loo wax on le prend comme une pilule on avale mhm. et puis on laisse passer mais quand on est en train de regarder di xool ak a xoolaat di jéem a indi ay hypothèse wala déet là y a un vrai problème et en réalité su ñu fii tamit eh, maanaam eh, est que nekkuñu si ñun ñëpp est-ce que ñun exposé wuñu et puis di koy def Euh, ça il faut ñu gën a ñu gën a ñu gën a xóotal na gën a euh, euh, maanaam creuser. Mm. ñi ñiy fexe ba loolu di am maanaam fexe ba nga xamante ni tey lu état bi def ñu dindi ko lépp li nga xamante ni information la état bi joxe dinañu fexe ba nga xamante ni ñu même bu fekkante ne information bi dëgg la dinañu fexe ba semer le doute dans la tête de Sénégalais tey lan mooy finalité bi lan mooy objectif bi. ak ñi koy def ñooñu ñan la. waaw non man nag c'est-à-dire que xam nga euh, aujourd'hui c'est-à-dire ces éléments de doute laa mënuma aussi. Mhm. wax ne sénégalais yi nga xam ne dañuy toog di déglu une version. du nu bàyyi xel ci beneen version parce que ay nit lañu aussi. Mhm. te ay boromi xel la ñuy waxal. Mhm. man dama gëm ni le sénégalais n'est pas manipulable. parce que aujourd'hui ñun ñëpp ñoo bokkandoo ère bi ñuy dund. en termes de. d'évolution d'information, en termes de réseaux sociaux et en termes de tout ce qui... En fait, pour moi, euh, le fait de vouloir dire qu'il y a une campagne de manipulation foofu laa d'accordul dama ne mhm. c'est à l'État de rétablir le fil du dialogue entre moom ak peuple de telle sorte que ñu instaurer waat la confiance mmh. confiance boobu indi amaana xëy na bu ñu dee wax dara mu bañ a semer le doute et le doute aussi li nu koy dindee mooy apporter tout simplement des éléments de preuve yoo xamante ne dina dal xelu ñenn ñu bari lu ci am mais aujourd'hui problème bi mooy Mahfous boo bëggee dégg-dëgg sénégalais yu ci ëpp ci ñoom je ne dirais pas tous les sénégalais mais la majeure partie des sénégalais n'adhèrent plus ni à la communication de l'État du Sénégal n'adhèrent plus ni à leur idée de projet n'adhèrent à rien concernant l'État du mmh. Sénégal parce que au-delà de cette rupture de communication dafa am une vraie rupture bu am diggante peuple bi mhm. ou une partie du peuple ak état bu Sénégal et ça c'est la vérité mhm. loolu yëpp nag li koy causé situation politique bi kese la et situation politique bi daf ci am ay acteurs politique yu mu concerné mhm. de telle sorte que askan wi dafa dem ba finalement état am fee nekk rek mais li ñuy wax rek mooy de toute façon jeex na ba noppi donc ñoom li leen fi dese bareetul xam nga loolu bu xasee ba am mooy ne désamour mu ngi commencé am mm-hmm. te xam nga désamour boobu ñoom état bu Sénégal dañu ko war a analyser à sa juste valeur mm-hmm. bu ñu ko analyser duñu ko jël sur l'aspect négatif mm-hmm. dañu ko war a xoolaat bu baax sur l'aspect politique pour apporter des critiques personnelles par rapport ak ñoom cette gestion ak ni ñuy doxalee ak sa ak askan l'information c'est la base de tout et la communication est le début et la fin de tout processus bu fekkente ne danga koo rompre ci diggante bi ma bëgg nag dellu si waat ne nit kii wax dëgg yàlla xam naa ne wóolootoo ma sax naam waaye bu ma la waxee lii gëmal dama naan la li may wax naam mën naa koo gëm waaye indil fokote mhm. donc aujourd'hui nous dire même à la limite euh, que cet attentat terroriste ñi ci ñàkk seen bakkeen ñu ngi ñaan yàlla yërëm leen xare leen àjjana di ci jàll seen njaboot gi leen jege ak ñi ci am gaañu gaañu itam ñu am ci wér-gu-yaram bu bu bu gaaw a gaaw mais au-delà de tout cela en fait un peuple aussi am na fu muy toll cim réew en fait il faut le rassurer si il faut rassurer et ce peuple sénégalais dafa soxla ñu rassurer leen soxlawuñu ñu ñu yóbbu sunu fit gën noo tiital parce que Mahfous coow li lu muy bari bari mooy am na ci ñoo xamante ne bu ñu xëyee Seydina Ousmane amuñu oto bu gaar ci seeni buntu kër ci car rapide yi la ñuy dugg mm, ci tataay yi la dugg te en temps normal bu dëkk bi dara xewul manifestation dara amul dangaa gis benn bus tata bu ñu taal mm. bus tata bi bañ koy taal dafa fekk réew mi nekk ci benn contexte mm. donc contexte boobu isam mënuñu ko dindi ci li ñuy dund il faut ñu contextualiser ko par rapport ak circonstance bi mu ñu fekk daf ñu fekk ci ay manifestation fekk ñu ci dëkk boo xamante ne dafa nekk dans une situation de crise et c'est ça la vérité. Mm-hmm. ce n'est pas en temps normal boo xam ne da ngay dox nii rek ñu lancé cocktail molotov bis ba tàkk. Mm-hmm. donc contexte boobu mënuñu ko génn ci li ñuy waxtaanee. Mm-hmm. la vérité est que. donc loolu dafay dàq euh, attaque terroriste bi ñuy wax néew ma daf koy dàq. je ne dirais pas que daf koy dàq mais dama ni contexte bi aussi daf ciy compter. bu fekkonte ne dafa nekk en normal nii les gens se poseraient plus de questions si. mais dafa fekk itam mu nekk ci benn contexte de crise te contexte boobu mënuñu ko dindi ci li ñuy dund la vérité mooy aujourd'hui xam naa nag du yomb parce que ku mel ni man boo ma laajee dama naan la xajatu fii mhm. parce que pour man li xale yi naan ñaaw na ba noppi mhm. yaa ngi may dégg mais mën mhm. naa bañ a gën a ñaaw nag mooy ci li ci jot a des nii as tuut ñu gérer ko de telle sorte que ñu indi sérénité indi stabilité indi apaisement mm-hmm. au moins même s'il n'y a pas une totale réconciliation mmh. entre le peuple et l'État du Sénégal qu'il y ait au moins une certaine civilité bu mmh. ñuy permettre ñu mën a vivre dans la paix et dans la sérénité d'accord euh, fàttali que ni yéen ñi seetaan yéen a ngi euh, teewlu euh, seen émission de le regard comme li ñu ko amalee tous les lundis à partir de 18h30 Cheikh ñu ñëw ci mbirum Ousmane Sonko Ousmane Sonko boobu ba léegi mi ngi eh, ci kaso bi. Mm-hmm. Eh, eh, ginnaaw bi nga xamante ni ñu ne dafa sàcc téléphone après la ca xew-xew ci ak yeneen chef d'inculpation yi nga xamante ni teg nañ ko ci.